salaamaaleykum yeen sama client yi man maa ngi leen nuyu sama tour ak turu salle informatique bon ñi ngi def ben publicité bo xamné ne tax pour ñu leen koy won parce que dañu indi ay bagages yu bari yo xamné ñu ngi ko voyage yi ko Dubaï ak Chine ak fep fo xam ak Italie France lepp lo bëgg ci wàllu informatique bon am nañ ko ñi ngi nekk nak terminus tali bu bon ñi ngi lay ni présenter suñu bagages yo xamné ne ñoo leen koy jaay di leen ko livrer gratuitement livraison bi nak bo gisee ñu def gratuitement parce que ñun suñu client ak yéen ay xart lañu ay collaboration yu yag lañu bon livraison yi nak mutu yaa ngi mom lañu livrer bon dañ koy livrer gratuitement amul kenn ko xam dañ lay livrer nga fay ñaari dërëm ak fepp fo munte ne bu dépp bo foo munte ne ci adina bo livrer ben paquet plastique A3 wala ben ram double A ak nu mu toll ñun ñoo la koy livrer gratuitement ta do ci fay dara ñi ngi nekk terminus tali bu bees boo ñëwee ba terminus tali bu bees tali gunaas bi foofa laaj salle informatique dañ la koy wan ñi ngi jaay lépp loo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu informatique lépp loo ci bëgg boo ñëwee ñun ñoo la koy livrer te doo ci fay dërëm kon ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw ci place bi pour ngeen ñëw ñu liggéey ak bépp wari ak bépp papeterie ak bépp infographie ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw ñu liggéey ak yéen bon liggéey bi nag ni muy demee mooy bon euh, bu ngeen bëggee carte bu ngeen bëggee encre bu ngeen bëggee papier A4 bu ngeen bëggee euh, double A lépp lu ngeen bëgg ci région yi ci département yi ci village yi fépp fu ngeen munta nekk dañ leen ko yut livrer leen ko ko papeterie bu mag la nag boo xam ne dafa commencé di liggéey ak client yoo xam ne vraiment mënuñ ñoo am seen fay parce que client yoo xam ne la chaque jour dañuy woote ñu leen di livrer ñu am collaboration bu dëgër ak ñoom kon li ñu bëgg mooy ngeen ñëw ñu gën a liggéey ñu gën a def collaboration bu dëgër. bon comme ni leen ko waxee woon bon dañ leen di présenter produit yi nga xam ne ñun ñoo ko indi voyage ko ñëw pour yéen indil leen ko pour ngeen consommer ko comme tey am na ñu bari ñoo xam ne dañuy jënd ay imprimante mais cartouche daf leen di xaw a sonal bon de ce fait que nag indi leen imprimante yoo xam ne am nañ ci A3 am nañ ci bon A4. A4 bi Epson la moo ngi nii moom la leen di présenté ko ñu ngi koy wax imprimante Epson L360 boo ko xoolee mi ngi nii bon képp ku ko am da nga noppalu parce que imprimante bi mi ngi nii. pour di leen wax yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci cyber yi ak ci bureau yi bon imprimante bi imprimante bu am solo la boo xam ne day noppalee nit bon wàllu cartouche. bon imprimante bu am solo la boo xam ne day noppal nit wàllu cartouche du la sonal parce que imprimante dafa nekk imprimante boo xam ne day jël liquide bi liquide baa ngi nii du jël cartouche moom liquide rek lay jël am na bon bu ndaw bi. Amna bon demi litre bi quoi demi litre bi xaar len ma won len ko pour ngeen gis demi litre bi quoi demi litre encore comprendre ma la bi demi litre bi bon amna bi moy bu ndaw bi bon encre machine bi soko ko bon mom dootul jël cartouche liquide rek lay jël bon liquide bi nak ni rek ngay bon bon di chargé so ubé ni li mom jël encre quoi mom moy place encre soko ba mu ci photocopie day scanner day imprimer des def lepp scanner bañu ni bon day scanner bon day photocopie day imprimer day def lepp machallah imprimante bu mucc ayib la bo xamné bon en gros soko soxla koy indil defal ci machine bu la ku ko am di nga sama client yi ma leen ko pour présenter leen ko pour jaay leen ko pour ngeen utiliser ko bon ñun nak ñi ngi bon ñëwee ba terminus Talib Baye foofu foofa laajte salle informatique dañ la ko war ñun suñu clients yi ñoo ñu tax a jug bon dañ leen koy indi pour jaay leen ay matériel matériel yi même les cartouches dañ koy indi Ricoh yi yi nga xam ne Ricoh vingt cinquante quatre mille cinq cent ah euh, trois mille un yooyu yëpp dañ koy indi cartouche yaa ni nii dañ leen koy présenté bii cartouche Canon la cartouche Canon trente huit indi nañ ci lu bari quantité bu am solo boo xam ne boo dikkee ñun ñoo la koy jaay livrer la ko indi le ko cartouche bi c'est un bon prix prix bon yomb na. Euh, amna qualité baxna na cartouche baangi ni indi nañ ci tous les couleurs quatre couleurs yep indi nañ ko kon yeen suñu client yi ngi leen di pour ngeen ñew ci salle informatique même les rico yi rico ngi nii quatre mille cinq mille lépp loo ci soxla muy trois mille un deux mille cinq indi nañ ci quantité bu bari en gros lañ koy jaay quantité bu bare bare bare lañ ci am ak ram double A papier photo lepp lo soxla ñëwal salle informatique soo fu ñëwee diñ la ko jaay livrer le ko indi le ko qui ci am qui problème ñun suñu clients yi des suñu xarit ñun suñu gens yi ñun ñoy suñu collaboration ñoy suñu bon di waxtaan ak discuter ak waral vraiment yu fidèles ngeen yo qui ñi ngi Pikine ñi ngi Parcelles ñi ngi des bon qui ñi ngi gens qui ñi ngi ba Sandaga ñi ñi ngi fépp gens qui ci gens ak ci région yi ak ci département

comprendre ma tambour complet lépp loo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu encre soo dikkee dana la ko vingt cinquante bi Rico baa ngi nii bon boo ko ñëwee dana la ko jaay indil la ko jaay la ko en gros prix bu yomb lañ koy jaay am na tambour bi am nañ raclette bi am nañ lépp chrono bi lépp loo bëgg ci yéen techniciens yi jërutul ngeen dem Dakar ñëw leen fii ñu liggéey ak yéen di ngeen di jël oto di dem ba ci Sandaga di dem fépp mën geen a ñëw fii ñu jaay leen ko wàññil leen ko jaay leen prix yu baax te du ngeen ci am benn problème kon ñew leen ñu liggéey am nañ raclette am nañ tambour bon su ngeen bëggee man nañ leen wan raclette yi man leen wan tambour bi kon nañu dem ci biir place bi ñu wan leen raclette ak tambour yeeg yooyu yëpp boo ñëwee dañ leen ko wan quoi bon place baa ngi nii bon ji bon lii mooy librairie papeterie salle informatique bon librairie boo xam ne la boo ay jeunes ñoo ko taxawal yoo xam ne gëm seen bopp liggéey moo ñu tax a jub bon li ñu bëgg mooy liggéey ak yéen collaborer ak yéen yéen banlieue bi ñun yéen la ñu am muy géejawaay muy yëmbal muy lépp lépp loo xam ne muy photographie ñun indi nañ papier photo bi indi nañ ci qualité bu mucc ay am nañ ci A4 am nañ ci a am nañ ci A1 am nañ ci papier photo baa ngi nii bon soo xoolee ñu indi nañ ci qualité indi nañ ci lourd indi nañ ci léger lourd baa ngi nii am nañ ci lu bare bare bare bare am nañ bu am dessin bi am nañ bu amul dessin bi kon ñëw leen ñu liggéey ak yéen su fekkee même les techniciens tambour yaa ngi nii tambour yi boo ko xoolee moo nekk nii timbre boo soxla am nañ ko muy vingt cinquante bon am nañ ko muy vingt seize lép loo bëgg ci timbre raclette indi nañ ci quantité bu bari di dem Dakar yàq sa temps la boo ñëwee fi dinañ la ko jaay comme ni ñu koy jaay waa Dakar bon papier A2 bi aussi bi gis am nañ ko te quantité bu bari lañ ci am am nañ papier A1 aussi plastique moom waxatuñ ko kat quantité bu bari lañ ci indi boo dikkee dana la ko jaay livré la ko indi la ko même chose kon da ngeen di ñëw.

ou bien nga woote ci 76 bi 533 03 68 dinañ la dalal livrer le ko lu am qualité nak lañ lay livrer ñun duñu livrer mukk lu amul qualité Garantie le cartouche yi cartouche buñ la jox bo ci gisee defo indi ko ñu delloo la sa xaalis lepp lo bëgg ci cartouche indi ñu ñu livrer la ko monter le ko tasser la defal la sa facture garanti le ko cartouche baax lañu am cartouche yaa ngi nii lépp ci soxla muy 17A muy 85A muy 728 muy 737 lépp cartouche boo ci bëgg am na ko même cartouche yu ndaw yi 63 61 soo ko bëggee mi ngi nii am na ko même les imprimantes 21 30 mi ngi nii dañ koy jaay en gros quantité bu bari lañ ci am moo nekk nii 21 mooy jël 63 mooy jël 61 si ngeen ko soxla aussi woo leen ñu ci numéro yi contacter la ñu ak si 77 bi 523 04 90 mooy whatsapp bi su ngeen ci envoyé message dana leen gis dana leen tontu dana leen assister bon place baa ngi nii boo ñëw leen ñu liggéey ak yéen. ak liggéey bu mucc ay boo xam ne di ngeen ci am benn problème kon yéen photographe yi ñëpp ñu nekk ci banlieue bi yéen clients yi ñu ngi leen sant di leen gërëm di wax ne gis nañ seen taxawaay ci nga xam ne collaboration bi ngeen di liggéey ak ñun kon ñun mënu leen a fay kon boo ñu ngi gën a am courage ak yéen gën a am confiance ak yéen ngeen ñëw ñu liggéey léegi nag dañ am ay bagages yoo xam ne dina génn mois de août bon mois de août bii mais dafa am retard mais incha allah ci kàttanu borom lépp lu ngeen soxla ci wàllu papeterie muy ordinateur muy imprimante ak lu munti doon ñëw leen bu ngeen ñëwee dina leen ko jaay wàññil leen ko jaay ko en gros te du ci am benn problème kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax kon à la prochaine merci beaucoup.